Mbacke balay sax bis bi li ma ci yëg lépp mooy xol bu sedd ak mbégte ak dundaat yàlla sunu borom ndax sunu famille bi dafa meloon ni am na lu ci dugg lu koy rax kon sëñ Mountakha Bassir bu wootawaatee bis bi dafa bëgg ñun ñëpp ñu dundaat delluwaat ci yàlla sama borom ndax moo fi ne fii kan moo fi ne yàlla yonante bi sëñ Bamba maam Cheikh Fall Abouri Diallo laay ñun dañuy sant Serigne Touba ñun ay murid lañu jërëjëf Serigne Touba ginnaaw bi nu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad ñuy sant Serigne Touba di sant sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér yàlla na fi yàgg te wér yàlla na nu yàgg gunge nee leen jërëjëf sëñ Muntaxa jërëjëf sëñ Muntaxa jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba. taalibe Cheikh laa waaye tubaar fakal la bés bi dafa neex bésu jullit la ñu woote te man ko sopp sëñ Muntaxa laa بيد ففي كون ما في بار واي سما خول سيد نغوي ديري ديفو سيرين توبا ديري ديفو سيرين توبا ني نيب بن لاج موي ليب موي لي سون بروم ميغا خامني موكو ماي ليم كو ماي سون بروم دو ماي دنا تي داكو ليغي با يالا ديفال كو كون يالا يالا ديفال سيغ مو تخامو ياغ بيتي وير تي يين نيغا خامني يين تاخاو بيس بي سون بروم ديفال لين توفيق ak tayseer سون بروم ديفال طالب يي جام ak خيوال يي جوخي اديه te Touba ca kanam nag seen xel dañ cee jàpp ñu gën cee góorgóorlu ci barke Sëñ Touba yéen sant di sant Sëñ Touba bu wér a wér a wér sant Sëñ Touba ndax Sëñ Touba moom li yàlla may da ngaa mayul kenn Sëñ nee na kafaaniya fegal na ma albaaxi aji des ji almamaata dee sarmada ba faaw loolu Sëñ Touba rek la yàlla may muyu ko keneen nag xoolal la ci Adama ba ci ki mujj ki yàlla di bind Sëñ Touba li nga yàlla may mayu ko keneen ñoo leen di siyaar di am mbégte tey ci jataay bi sëriñ bi Muntaxa moom sëriñ Basiru ñëw gane si ko waa Dakar muy sagum ñëpp di ci jaajëfal mbokki taal bi yëpp ñuy ñëpp jóge ñëw wuy si ko di ñaanal si Muntaxa lim yéenee liggéey Sëriñ Tuubaa yëpp mu defe ko li kaw njortam te ànd ko mbokki jullit te mbokki taal bi yëpp